lu tax de duñu dem ci showroom mi daal di fa jënd lu toll euh, li ñu am ci suñu poche. ba tax ne duñu dugg ci euh, tooxi doona yu mel noonu. mais asma sàcckat sàcckat da ngay mën a doon <laughs> amal junni matériel. Mm. lépp loo mënti yor si sa kër te yow. tu es ne sàcckat moom ngay doon. <laughs> en tout cas. yàlla mës nañ fob sa téléphone. Yacine Yacine dañ la mës a def noonu. mësoon <laughs> ah, la Yacine mais c'est vrai sàcc day tas yaakaar. Ah, mais comme ni Asmar dafa am ñoo xamante ne moom dañu bëgg lu yomb. seen yoon nekku ci xam nañ ne lii jarul loolu mais forcément comme gis nañ ko bëgg nañ ko rek dañ naan ah occasion la bàyyi ba jënd ko mais nag lu tax ñu leen di jàpp di leen teg daan yooyu comme li Mohamed wax c'est parce que receleur dañ la jàpp comme complice ndax ki nga xamante ne moom lañ jaay euh, matériel bi forcément mën nga am euh, accès ki nga xamante ne moo la ko jaay parce que parfois trace lay doon te doo xam ñi ñi ci bëri dañuy def ay dégâts ñi di def ay crime ñi nga xamante ne def ay viol comme li nga wax ni looloo tax daan bi dafay metti seen kaw man xam naa un jeune boo xamante ne jàpp nañ ko ci te pourtant dañ koo jaay benn euh, ordinateur portable fii juste ramener un petit point gis nga temps yee passé dama dem euh, camp pénal prison camp bu jigéen ñi y a une dame une dame plutôt elle est banquière xam nga lañ ko jàppee moom yëgul li xew de tinul de copinam sax lañu jàpp banquière bi moom i jàpp nañ ko tout simplement dafa jël xaalisu jàmbur si compte benn compte bancaire benn nit mu jël fa nangami xaalis pour nee na dafay fecc yaayam comprendre nga des vingtaine une vingt de millions la jël léegi ba mu fejee yaay ji ba pare mu woo copine bi ne ko man di diw damaa jël xaalisu diw pour fej sama yaay te fi mu ne xaalis bi sax defe naa des na mais kooku ne ko ii bul sax tardé même bu dee dafa des loolu nga yor dugal ko gaaw ci compte bi parce que mën nit ki mën na ñëw di xool la moo nekk ci compte am barki Cheikhul Khadim femme bi banquette bi jàpp nañ ko copine bi xam nga lu ñu ko jàppee. complicité ndax wax na fa rek dellool xaalis bi. te yëgul tinu. waaw tu as vu mais mais foofu la <laughs> justice a mal apprécié. Euh, euh, ah. on va pas commenter mais la justice a. a oui. trop mal apprécié. bon interprétation bi. no moi je vais pas dire que ne la justice est est a mal apprécié. justice kat dafay juum fii Sénégal. mais xam nga xam nga yoon. yoon dafa sew. li wax ni boo ko toppee ba ci kii mën na doon mën na par exemple beneen cas bi mu lay jox très rapidement asma nit ki euh, ñëw na rek fekk la asma ne la alma sa téléphone ma woote. Mhm. def nañ ko benn yoon nit ndekete waa ji dafa dem violer une fii bu mu ko violer ba pare ñëw ab téléphone copain ba mu àbbee téléphone copain am ndaw si di xool ndax yeewu naag ak ce ce léegi nag ba police ñëw di def euh, enquête am gis appel bu mujj. Mhm. Euh, ci portable ndaw si. Mhm. appel bu mujj boobu noonu xam nga kan la mooy waa ji dafa àbb téléphone copain. Mhm. copain boobu lañ jàpp. Mhm. Oh, pour te dire que ne il faut faire très attention même ñëw xam koo xamul. ñëw ab la alma woote. bañal ba pare sénégalais yi euh, paasan il faut que ñuy am habitude bu ñu jëndee matériel di laaj reçu. facture. facture c'est important on n'a pas amuñu flair boobu te loolu mën na la dimbali ci lu bari bari soo ko laajee ñu ne kii dafa xam nga Sénégal rek kii dafa tubaabee xam nga jënd laaj ay facture dafa compliqué non parce que dëkk bee toj dëkk bi bu tojee nag da ngay xam foo taxa fooy taxawee mm-hmm. kon daal maanaam ci gën a euh, ci ci leeral am na euh, ci gàttal am na code bu wax loolu. oui code de procédure pénale mooy article 430 boo ko demee vérifier dinañu xam ne ah. Euh, receleur bi dina xam ne kon man article bi moo ma daan parce que yoon dafa dafa dafa sew article yi bëri na loolu la ma maître Moussa Sarr doon wax démb article yi bëri na tellement que ni doo ko mën a jàpp mais maintenant cas bu nekk. Mhm. am na bu ñu ko bu ñu ko kii parce que au euh, maanaam au tribunal boo demee c'est pas parce que da ngay ñëw rek jàpp nañu nit ki non da wax lan nga ko daanee. Mhm. ak lan ko teg yoon lan la ko daan parce que yow mi koy teg loolu sax mhm. yow doo dara. dafa am lu ñu gàll sa kii muy constitution bi ay article ay code de procédure pénale ci loolu ngay sukkandiku moo xam yow avocat bi yow juge bi yow nangam nangam pour daan kooku maintenant nag ki ñu daan mën na mën na ne lan nga ma daanee ñu ne la kat ah yow mii recelleur kat lii mooy receleur lii mooy recelleur lii ak lii la ba mu leer sa bopp ñu ne la kat ah mhm. cas de figure boobu kat suñu article ñun code de procédure pénale nee na boo demee ci article 430 moom moo la daan kon donc texte yi yow ñoo la daan. <laughs> texte yi ñoo nee nañu. ki nga xamante ni maanaam sax man su ma jaay suñ ma jaayee téléphone boo xamante ni amul reçu njëg li mm. euh, euh, méngoowul ak bu buñ ko daajoon ci paquet wala boutique yi koy jaay. Euh, te mu jógee ci ci ci loxoor li Yacine di bañ a dégg. <laughs> waaw eh, voilà maanaam téléphone bu ñu jot a ba pare. très bien bi ñu sàcc rek. bi ñu sàcc damaa bañoon yegg ci tur bi. téléphone bu ñu sàcc wala bu ñu agressé. parce que xam nga nit mën nañ ko agressé. Mm-hmm. jël téléphone am. Mm-hmm. dem jaayi ko. Mm-hmm. fois ma ñëw xool ngay nelaw ma sàcc sa téléphone dem jaay ko mm-hmm. mais téléphone buy jaay un million cinq cent nga dem jaay ko vingt mille loolu dañ lay toppee comme receleur wala yow endroit bi nga xam te ne ni fekk nga ma ko fa jaay ma ko. Mm-hmm. du endroit propice pour jaay fa téléphone bu bu mel noonu. muy marché noir voilà. il faut faire très attention parce que da ni ñi téléphone bu bees bu génnee dañuy teg seen xaalis aussi ci téléphone di dem jënd pourquoi je précise ça. Mm-hmm. c'est-à-dire nous on peut comprendre mais il faut que askan ñoom ñi nga xamante ni leen koy jottali. Mm. ku ci nekk sa degré de compréhension. ñu leeralal la parce que yoon dafa mat a leeral. mais gis nga téléphone yu bëri yi nga xamante ni euh, maanaam nga jënd par exemple iPhone bu bees <laughs> tàkk quelque temps après gisoo si biir site internet yi ñuy jaay téléphone yi par exemple duñ la jaay ak yi muy àndal accessoires yi mais téléphone bi rek lañ lay jaay. Mhm. gisoo nu mu bëree te ci yeneen dëkk lay jugee. Mhm. am na ñi nga xamante ni dañuy jënd téléphone mais dañuy xam ne que ni sax recel la. ah waaw c'est ça. daa la wax parce que ñooñu tamit ay complices dañ. koy xam problème mu marché lañ am comme li nga wax. dañ am problème mu marché. Hmm. dama soxla lii fee laa koy jëndi jee. dama soxla lii fee laa koy jëndi jee. loolu moom moo manqué Sénégal fu neex waay jaay. fu nekk fu neex waay lal. <laughs> da doxantu ngoon sax dem restaurant wala fenn nga génn. taseeg nit mu lay jaay ay affaire nga ni waa ah, kii fu mu jógee ah. guddi gi ngay gis ñuy lal partout di jaay nga ni waa mais heure bi donc ñooñu imaginer da ngay gis koo xamante da nga koy xool rek xam ne kii dama yàlla baal délinquant lay niru <laughs> mu da la koy jaay guddi gi fan la ko mën a jëlee eh. ak lu mu lu tax mu bëgg koo liquider vite fait loolu tamit il faut que ñu koy xalaat mhm. Bazan yaa yaa euh, la ba ñëwee Sénégal gis fi iPhone 11 bari fi loolu mu ne mais non mais attends Sénégal xanaa iPhone 11 dafay mel ni ndox <laughs> tellement que c'est difficile la mais Sénégal non boo génne woon iPhone 100 léegi nga gis ko mu ne xuus ci marché bi mais loolu mais nit ñi fan lañ koy jëlee ah mais ba pare ne dëkk bi metti na tamit asma loolu nañ ko xoolaat de ah ah mais non mais dañoo bëgg lu baax. loolu moom Sénégal moom mais sax koo xam te ni li muy fayee ko sax matul cent mille francs CFA di yor il mm-hmm. se permet de. de yor ay parce que ñu bëri dañuy yor ay bitig oh. bi ko ni bi ko ci jiitu teg ci xaalis du métti trop bii de maa ngi wàcc naa ba sonn. Ah. soppi ko wàcc naa wàcc naa. waaye dafa am ay téléphones yoo xamante ne. Mm-hmm. da ngay def sa adduna bi yëpp foofu sa données yëpp fa la nekk. Ah. ba tax ne. tu n'as même pas envie de t'en séparer au fait mais euh, euphorie bi ak euh, bëgg lu baax bi dañ koy. ah ci la bokk ah mais c'est ça xaw métti ah, ah. ñu di la jaajëfal bu baax a baax Mouhamed. ma lay gërëm Asma euh, xam naa prochainement incha allah dinaa ñëwaat ci beneen sujet. lépp rek samedi port wi lépp rek ngir gën a gindi askan wi ci wàllu yoon parce que am na solo parce que ñoom la ñuy ñi xamul nag la ñuy waxal ñun waxuñoo ñi xam ba pare. Mm-hmm. ñi xamul parce que bëri na ci Sénégal ñuy ñuy oyofal wàllu yoon justice. Mm-hmm. te lu ñu ci bari ñu ngi tey yàgg ci kaso bi te lu ndaw billaay lu ñu xamul woon sax moo leen dugal ci kaso bi. te loolu moo ñu fi Mouhamed ci li nga wax ni pour mm. appuyer ci mm. en quelques secondes ah baal ma baal ma rek baal ma. Mm. droit. bi ñu naan da ngay dem faculté des sciences jàng ko fa politique et machin juridique. élève xale. préscolaire di yéeg. lañ la war a jàngal ñaar civisme. dëkk bi ni lay doxe la eh république droit. wax yi. ñu am culture absolument absolument màgg ak moom. absolument yomb. waaye da ngay dem ba ba ba affaire yi. est-ce que du li waxoon fii euh. tubaab bi dañoo bëgg ñun ñu bañ a yeewu. kay loolooy dëgg donc ñu di la jaajëfal bu baax a baax waaye ba tey rek li li nekk ci loxo yoon dañ koy bàyyi yoon ñun nag ci suñu point de vue rek li ñuy mën a yem. Ah ak ci suñu ay suggestion bu ko defee rek ñu contribuer juste au meilleur développement du Sénégal ci noonu la ñuy daal un peu l'atmosphère. Hein. On a parlé de droit, de, de, de, de, On en a besoin. de politique. Ah, il est temps d'étendre un peu la Yacine a besoin. Yacine a besoin de danser. Il faut qu'on aille danser un petit peu. <laughs>